gis nañ la sànq bi ngay dem ci armeel yi jooy yu métti yi nga doon jooy moment boobu lan nga ba tax nga doon jooy ba mënuloo téye sa bopp. pour dire vrai euh, Jean Paul lu bëri ci man ndax euh, su toogee fii sax di wax si day sori ndax Jean ak sama mag bu góor la woon yàlla di def sama mag bu góor jóge fi. Jean Paul def ma ñi rakkam Jean Paul jëli na ma école Jean Paul yóbbu na ma ma fubale Jean dugal na ma ci top modèle Jean Paul dugal na ma ci cinéma xaw ma fayam tey jii nii dafa mel ni maanaam man sama jëmmi bopp maa dem ndax xam naa ne dootuma am ku mel ni moom su ma téere loolu moo eh, yàlla rek ndax yàlla suñu borom moom su bëggee maanaam jàmmun ci dara dañ ko fasaale bu baax te xam ni du woon Jean Paul kese nit ku disponible nit ku disponible nit koo xamante ni nit musul ñëw organiser dara ci àdduna ba Jean Paul ne ko déedéet su munta ñëw sax dina xool ñetti booyam ne leen dem leen jàppaleel ma ki lu ci mujj jour màggal madame Sow bi organisé màggal IPG barki Serigne Touba Jean Paul moo ñu doon woo di ñu soññ nan nañ fa dem yéen ñi demul Touba wallahi azim vocal yaa ngi fi chaque instant mu dugal vocal mais na ngeen fexe ba dem IPG ndax madame Sow mi ngi woote. jour màggal jour màggal. te boobu suba la màggal gi. chaque instant vocal yi di dugg booy yéen a ngi dof dof lu demee na ngeen fexe ba dem si madame Sow jàppale ko ci safar bi wala ngeen jàppale ko jour màggal. chrétien la dëgg la mais ñun ñëpp fa yàlla gis nga àdduna lu ci gën a am solo mooy lan. humanisme on s'en de diw chrétien la diw lii da ngay gis famille boo xamante ne dafa am jëkkëru musulman jabaru chrétien chrétien yàllaa leen mboole yàlla suñu borom lu mu def xam na ko maa ngi dégg nag ñenn ñi di wax ci réseau yi jullit du ñaanal chrétien lii ñooñu ay jullit lañ bu dee bu dee xam nga lislaam yàlla suñu borom mandu la njëkk a digle loo xamante ni mënoo ci wax lu baax da ci màndu nañ ñaanal yàlla suñu borom suuf seddu ci kawam te xaaree ko àjjana. Mm-hmm. alors euh, accident bi nga xamante ni dal na ko. waaw mbiru suñu borom rek bi accident bi amee si guddi gi moom si boppam déggante nañ ñun dem nañ fa mm-hmm. waxtaan normal ak lépp mais xam nga ay mbiru yàlla rek. maanaam tey faxasalu sax mun na jël sa bakkan ndogalu suñu borom kenn mënu si dara mais nañ santaat yàlla rek te xam ni ndogalu suñu borom la. Mm-hmm. alors biñ la ko tàggee moo nekkoon sa est-ce que bett na la parce que comme li ñuy wax que ni dëj dafay bette ndax yow bettoon na man ba nii nii may wax yow gëw ma ne Jean Paul dem na maa ngi defal nit ñi maa ngi ñaan pour man mi ngi fi ba léegi sànq laa dugg di xool sama message ak moom bi xalaat ndax dina ma message yàlla baax na yàlla baax na dimbali leen ma rek ngir yàlla

wax ñuy waxtaan soo maanaam nit du ko ñëw rek xool euh, ne kii chrétien la nit koo xam ne mën nañu exception la tey soo xoolee mbooloo bi fi tase mbooloo bi fi ñëw nii ñu xam ne kooku kenn la woon tey di ko ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu jógee. waaw baax. waaw maanaam euh, mook sama copain bi di caalis ñoo yarandoo tey kenn moo lu mën a wax si JP di Thialis ñoo yarandoo depuis enfant mais tey ak ginnaaw Thialis moo tax ñun ñu xam ko ñoo doon nekkandoo tournage plateau tournage koo xam ne du wax xam nga waaw ku yaru daal en tout cas daal ñu ngi koy ñaanal rek ñu ngi koy ñaanal lool Thialis Thialis waaw ak ñuy fàttali ko maanaam plateau tournage rek xam nga plateau tournage ak bu doon ñëw fii toog fii la ñu taxaw nii sax lañ daan taxaw xam nga kaf foo ko fekk ak booy xam nga soo xool sax amaana booy ñoo nekkoon moroomam comme ni ko Thialis waxee man wax si wax si moom la day xaw a diis xam nga di leen remercier te am aussi euh, seen teewaay fii. mais wax waaw dafa sori nag dafa sori xam nga tey nit di nga xamante nit ay deux jours sax mu làq mu metti la asma koo xam ni da ngeen doon nekk lu baree bari waaw moo tax wax ci moom di diis voilà wax wax dëgg fa yàlla nag yi am nañ yéen a wax mais pour tey ni xam nga diis nañu lool sax. am na loo xam ne waaw am na lu ma marqué woon maanaam euh, bu ñu demee woon plateau tournage Almadi xam nga toog am benn instant xam nga heure wu repas jot genre foo fekk du wax toog kalm da nga koy jaayanteel sax xam nga pour mu maanaam foo ko fekk moom day mel ni sax euh, du acteur te soo xoolee ba xool mbirum cinéma acteur waru sa bouger te ta euh, assiette mais gën nañu oyof. wax dëgg fa yàlla gën nañu oyof nit ku oyof koo xam ni xam nga chaque jour yaa koy forcer sax di insister xam nga kaañoo ak xale yi nii xam nga Fall da nga naan xam doo ko mës a jugé sax que nii moom doo mës a toog ba ni kii chrétien la kenn mënul wax lan la ni su ku ko xamul ko ko jegewul waaw. alors lan bi. accident euh, nee man mën naa ni yëgoon nañ accident bi ñoo ñoom Thialis mais man jour màggal ci suba ndeysaan lañ Thialis envoyé message dañu sii di ah wax dëgg fa yàlla JP dem man mënu ma ko gëm ndax comme ni ko Thialis waxee ba léegi gëmuñu ko. maanaam yëgaguñ ko yëg nañ ni instant ni caa JP dem na nii mais xam nañ ni dinañu touché te dinañu manqué lool sax. Mhm. waaw nit ki manqué nga noonu merci ñu leen remercier. mais ko gunge ci li nga xamante ni moom moo di këram gu mujj alors bi ngeen demee dugg ci armée yi ngeen sentir. ñoo ko gunge marti de Louganda ci mees bi xam nga taxawoon nañ ko def nañ lépp te it gunge nañ ko ba Saint-Lazare xam nga ñaanal nañ ko lépp lu wàll ci wàllum prière.